gàllankoor dalee ci doomam ji ne dana mel ni mosoo koo xam dana mel ni mosoo koo xam bu fa wala dafa amit góor wala dafa def feebar nangam wala ko négligé mu def nangam mel ni ki la joxoon doomam ca gën a bëri kat ñu yor daaraan may déglu koo ci jàngal bu mokkalee jarab ba takkee bagaasam yi boobu mooy tuur jarab la baayam gëj a xam ne daara ja mel moom xale bi kañ la gëj a xam ne daara ja mel bu ñee téeméer fukk ñoo ciy delloo ko ñekee des ñëpp dootu leen gis loolu métti na su ko defee kon nag parents yi nañuy làmb seen poche yi xool fa ñuy yóbbu seen xale ya la fa manqué ñu fexe caa def dem ci seen mbokk yi am ñu def ko buñ ko defee rek lépp tax kon yàlla li muy baax baax nag moom ñun la gàcc ñu fexe ba góorgóorlu ut fu ñuy jàngee gannaaw bi ñu indilee lu ñuy jàng muy benn ñetteel bi jàng mënul am lu dul kuy jàngale am na parce que kuy jàngalu taxaw na muy parent bi mais loo bëgg bëgg jàngalu soo amul kuy jàngale jàng du fa nekk naa ne nag jàngkat yi jàngalekat yi jafe na ci ji jamono waaye ca kanam ak kanam lay gën a jafe ñu ngi dund joo xam ne ab ustaas fi gën a jafe jàngalekat benn waaye waxoon na ma ko ne ñaare gën a jafe ci suñu jamono ji ab safoor bu normal ak jàngalekat bu normal foofu lañ toll suñu dana te kanam lay gën a jafe lu lay xam ne dana gën a jafe man ragal naa danañ toll foo xam ne dana gis ko tabax daara du gis ko la jàngalee lu tax neex naa nag moo ñuy xamal ëllëg boo laajoon tey Cheikh Omar Ndiaye nga laaj tey sëñ Omar laaj borom daara yi na yow sa daara ji ñaataa ci mokk la gum man ngaa taxaw na juróomi téeméer kii na ñeenti téeméer kii na juróom-ñaari téeméer boo ko laajoon ñaataa cay jàngale est-ce que dana xam fukk kon ñi jàng alxuraan ba mokkal ko buñ ko nanguwut jàngale ku koy jàngale benn waaye nee na ma sama internat bi ñeent fukki nit mokkal gum na ci waaye ñu mokkal ñëpp kenn ku ci jàngale amul ba ci sama doomi bopp ñëpp ñu nga sàngal fu ñu jëm te fu mel nii tam fi tabax daara pour oustaz ba ko am fii ma toll ma nu mu néew néew soxla naa lu mat juróom-ñaari oustaz bët bu set maa ngi wër téléphone amoo ba léegi man naa boo fi jógee dana am ñu ma wax oustaz jafe na mais te kanam lay gën a jafe kon fokk bu ñu amee yéenee jàngalu fokk ñu am ñu nangoo jàngale waaye gannaaw bi ñu amee tamit ñuy jàngale fokk ñu am ñu am ñu volontaire pour jàng su bi taxaw ne damay jàngal jàngalekat bi taxaw ne damay jàngale ndongo li parewul pare jàng jàng du fa nekk mbooleem nag ñeent ñi wala ñett ñi kenn ku ci nekk dafa am lu la wax yow jàngalekat maa ngi la xel ne yaa tànn métier mi gën a métti yaa tànn métier mi gën a woomadi yaa tànn métier mi gën a yéex soo jógee ne damay jàngale alxuraan boo yàkkamtee bokkoo doo dem soo bëggee lu sedd toogal bañ na ko ba nga toog sax dafay tàng jiir jàngalekat boo dem fa mu toog wallaahi bu jógee doo ko mën a kon boo yàkkamtee bokkoo soo bëggee lu sedd bokkoo bu ñetteel bi boo bëggee koom-koom dajale doomi jàmbur yi di ko wutee alal da nga torox kon ñett yëpp ko jox laajul gaaw muy yàkkamti laajul koom muy alal laajul mu yomb waaye nag ba ñu yàlla xeñee ñett yi ci njàngale bi jox nañu lu gën a foor ñett yi mooy barke jàngale katam alxuraan boo gis yàlla def na ci moom barke ndem gëm na ko te di ko jëf barke nag mooy lu dul jeex rek loo soxla mu faj loo soxla rek mu fay nga génn àdduna ñi fi bàyyi topp loola muy continuer barke bay dem ba tey say say sa ba tey sa yàlla waaye nag it jàngalewul alxuraan lu mu mën a yor lu mu bëri bëri wërsëg la mais du barke wërsëg ak barke du benn barke mooy loo xam ne bu tuutee man lu bëri wërsëg mooy loo xam ne bu bëree man lu tuuti. kon duñ benn moo tax léegi nga gis jàngalekatam alxuraan boo xam ne assuré wu weer bi cinquante mille mbaa soixante mbaa cent mille franc te nag yàlla nga ko roof barke bu day nii am na lu mat ñeenti soxna yore lu ëpp fanweeri doom te amul problème mu dépense nga gis fi koo xam ne jàngkat tubaab la mi ngi fay ko mu dee quatre millions wala deux millions mbaa trois millions te fenn si njaboot rek laa la am ñetti doom balaa weer wee dee mu weer mu ne mu ci bëri balaa weer wee dee weeru nañ ñeen nañu balaa weer wee dee sax dee nañ bu yàgg yéen a ku baax nga laaj ko ne ko yoo yor mu ne ñeenti fan looy fayee ko mu ne dara xaw ma benn benn benn weer bu assuré bu may fay nangam lépp ci barke rek lañ fay kon barke du caaxaan barke du caaxaan moo tax li nga yor boo ko xeebee rek trop. Sayyidina Abubakar dafa daan wax ne ku yàlla may téere yàlla bi nekk ci sa dënn nga jël sa bët yii di ñeexati ko tim ngir tuuti nga lu rëy. téere yàlla bi ko nekk ci yow lu la gën a rëy amul lu ko gën a rëy amul fonkal sa bopp waaye boo ñàkk dara boo yorul woon sa yor bàyyi loo soxla mu faj. moo tax suñu maam yi ak suñu bàyyi da nga ci gis ñu dund ba génn àdduna mosuñoo yor ñaar fukki junne yi dajee waxuma la téeméer bi ne waxuma la million waaye mosuñoo am soxlaay million bu kon ñoom amuñu woon dara mais jeexalul dara tey amul dara dara jeex mais dara doy koo ci gis mu romb laa kàttaatam mbaa nga xool këram nan ko tabaxee mbaa entreprise am ba mu tax nga dem bënn say bët tuur say ronqañ di ko wax sa soxla bu la waxee boppam nga ko sax li nga tax li waa ji wax lu am solo la ku fi topp ONC yi ñu yàq sa daara yi dugal na ci ay programme da ngay remplir lii utal nangam nga xëy jàngale hoo maanaam kooku jàngale hoo ba daara ja doxe ca tas te la ngay nit bu bootee la mu boot àttanu ko booy waxee ma lay bootaat boo xamee fu la nekk bu boot bàyyi ma nit bu gën a wóor danañ daara saa yuñ xëyee jàngul rek jàng ma yàq la sëñ Ahmed Saxir Lo yàlla yàlla yokk leeram dafa daan wax ne daara xiif du ko yàq tilim du ko yàq ay góom du ko yàq xam nga li ko yàq ñàkk jàng rek mu ne bis buñ xëyee jëluñ darsu mbaa ñu gontu jëluñ darsu rek daara ja yàqal kon bët bu set buñ xëyee nañ fexe wax naa la yéen a tànn métier bi métier moo xam ne yombul gaawul woomul boo ci bëggee woom koom-koom bàyyi ko bëgg ko boo yàkkamtee bëgg ko boo bëggee lu sedd bëgg ko bala yàlla xëyee ñett yi joxal lu ko gën muy barke barke nag du jeex ko dafa lay topp topp say sët ba pencam yàlla xam ngeen ne kër yi ñuy jàngee alxuraan bañ fi nekk ceddu yi fi nekk woon ñu yore koom-koom bi yore woon pouvoir bi wallahi bañ wanee gannaaw ku dem da nga xam ne ñaari place yi du jaay du benn te loolee place yi fi nekk alxuraan la ko barke ca Touba Mbatt ca Léona Niassène ca Medina ca Tiwaawan ca Njaasaan ca Canaba ca lépp fu fa barke nekk rek garab dafa jëmmatu ba barke ba nekk fa rek alxuraan kon nañ koy bàyyi xel waaye yow jàngalekat bi ñaareel bi da ngaa war moo tax yàlla bi nga xamee ne man maay jàngale kat bi ne arrahmaanu la njëkk a wax door a wax ne allama alquran te pourtant muntaqim ni ngi fi bu ko neexoon utiliser turu muntaqim waaye boo newoon al muntaqimu maanaam allama alquran kenn bu dem ca daaraan mais dafa arrahmaanu door a wax ne allama alquran kon yow jàngale kat bi boo bëggee dugg ci mbiram jàngale xottal sa xol bi nga dugal ci yërmande doomi jàmbur yi ñu la jox nañu la gënal sa doom bu xiif naree am na sa doom yi xiif ndax am nañ bàyyi bu leen jege nga bañ doomi jàmbur yi tam bu feebar naree ñëw nga ne benn la mënut a ñàkkatal kenn ci dal sama doom yi te sama te doomi jàmbur yi nga bu doon benn bakkan la mën a kër moytu ñëw soxla ko wallaahi na sama doom yi dee te doomi jàmbur yi am na fi ñoo xam ne seen yërmande yegg na ci ñu suul seen doom moo leen gën ñu suul ndonga daal kooku mooy yërmande waaye la xewoon bu njëkk ba léegi xewatul de ñu jox la doomi jàmbur yi amuloo yërmande yaa ngi dóor bay gaañu dañ koy moytu dañ koy moytu soo seet koo xam ne risil boo mën a def gisut ko la muy xaar ci yow rek mooy sa defet da ngay moytandikoo am defet te loolu moo bëri ci ñun suñu résultat soo fi beroon daara jàngal fi junne nit ñu mokkal waat naa ci yàlla bis boo gaañee benn doomu jàmbur ba yóbbu la ci yoon day mel ni sa daara ja kenn musu fa jànge loolu laay wax wax naa ko ci stade bi kat ma ne ñi ñu tuddee droit de l'homme yi ñoo yàq suñu daara yi ak yenn journaliste yoo xam ne dañuy waxal daara te xamuñu daara lu la neex nga wax bind lu la neex xale bu ñu jéng nga ne nangam ak nangam ak njaam la foo ko teg mii di shaa'ir bu siiw boobu di borom may yàlla gu boobu moo njëkk a jéng boppam moo dem ca daara ja jéng boppam ne du ma bàyyee koo fii lu dul ma alxuraan juróom benn weer ci la mokkal alxuraan mooy jéggi boppam te ñaata fii jéng gàttee am na ci ñoo xam ne tey boo leen tànn loo xool ñu seen loxo yi ak takk seen ak ñu jéng seen tànk yi buñ lay wax takkal sama tànk yi ku ma mën a dem am naa lu ma yóbbu sareet yaa ngi fi jakarta yaa ngi fi oto yaa lu ma bëgg a def defal ko sama bopp waaye toroxal ni passé wu takk loxoom ya ndax fu mu yóbbu boppam tamit lu mu bëgg a defee nga koy def bu bëggee naan dañ ko koy defal bu bëggee lekk dañ koy defal bu demee ca wan wa dañ ko koy defal loolu mooy toroxal nit yow nag loxo yéen jéng waxoo ca dara tànk yéen jéng nag loola neex nga wax te yàlla kat ci alxuraan fu mu tuddee loxo tudd tànk loxo alxuraan maanaam tànk ak loxo toujours yàlla dafa leen di teerale ci alxuraan boo ko jàng rek dana ko wax الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم kon fu yàlla tuddee loxo rek tudd tànk ñaareel li gën a bëri ci alquran yow nag loxo yuñ jéng waxoo ca dara tànk yuñ jéng nag nga wax ca bay bëgg a dee te ki fi indi alquran gi dañ ko jéngoon jéng ñett la benn ñu jéng say loxo mbaa ñu jéng say tànk mbaa ñu jéng sa doq gi ki fi indi alquran gi njëkk koo jaaree ci moom doq ga lañ jéngoon muy Seydina Muhammad jàng ngeen ko rabtahu juhdahu salaasa wa fiha faqa fa qaala man iqra'u raddada al ayata al karimata taaha wajilan minhu tarjufu al a'daa damam xalifa min atu saxaat mu ne ñetti njatt yi ma jibril njatt ba doon léegi nga ne kurt wala ko benn bu ci ne foogoon naa sama mooy xam dana ci génn te am na ñoo xam ne nga mboq leen nga nga jéngale ma leen ko gën te yonent bi ëpp ñëpp xel gën ñëpp dañ koo mboqoon wan ko ne ko téere bii kenn am ci noflaay ku ko bëgg a xam mbaa nga bëgg cee xam faw nga sonn dañ la sonal ci mënta ñàkk coow liy bëree ñuy wax yëpp li ma jaaxal mbëri yi bëri ñaari ponkal yu summeeku ñu autorisé leen pour ñu dóoran ñu ne dóor fekk ñu ne dóor fekk koo dóor baax man ngaa dóor ci xarxar man ngaa dóor ci biir man ngaa dóor ci gannaaw am na ci ñun dóor sax ñu doxee ci ñàkk bëj am na fi ñun dóor seen xarxaram yëpp te peeku loolu lépp boo ko gisee télévision yi génnee ko doo ca wax dara dégguma loolu ñu daal yóbbu la ko ardo rek xamoo fu ardo nekk yow nag sëñ daara bi mënoo lay wax ndox yóbbu la ko ardo rek mu jeex mu jeex waaye kenn du wax ardo jël ponkal dóor ko ba bañee tax nga dóor ko bët ba teppee nga dóor ko xaram ba ubbeeku ñi xëy bi nga yóbbu la ko ardo kese kii nag tay mu dóor tabaarakallaahu nga gën a rëyal dóor yi tey yóbbu ko cong baa nga yóbbu ko beneen nga yóbbu ko police yóbbu ko ñu tëj ko fa ko kon bàyyi xel kon jàng juróom yi ñoo ko seet juróom yi kenn ku ci nekk dafa war am jikkoy koo am yow jàngalekat bi maa ngi lay ñaan abbal jikkoy yàlla ci nga abbu jikkoy yorantu